bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam euh, bokki réew mi bokki jullit yi noo ngi yëkkatiwaat kàddu kàddu goo xam ne ak cant yàlla lay doon sant sun boroom mi nga xam ne lu xew mooma dañ koo war di sant teyit moom moo yeyoo sant bu jamono neexee ñu sant sun boroom bu jamono demee ba naqadi ci sunu wàll nu sant sunu boroom te xam ne du ci moom ci nun la nu gis ne jamono bii lu waaye di wax yaa ngay njëkkee ci coronavirus booy tëjit yaa ngay tëjee coronavirus ay weer ca gannaaw baat bi ñépp a ko umpale waaye bi nga xamee ne génn na te génnee ca Chine nu gis la mu fay rey ci ay bakkan muy law ñu naan dafa egsi ba mu agsi ci noonu ba mu agsee itam feeñee na ci fànn gu nekk ndax bari na bët bu set boo xëyee rek ñu wax ñi mu faagaagal bañ tëdd ci opito yi waaye nga gisit ñoo xam ne ñii daf leen di far jël seen bakkan ñetti nit génn nañ ci àddina fii ci Sénégal yàlla na yàlla yërëm leen te xare leen aljanna nuy ñaan nag nu xam ne njàmbat du ko dindi li nga xam ne moo ci am solo gannaaw bañ santee suñu borom te di ko ñaan mu teggi ko ndax dafa mel ni rek ni xiinu taw di jóge làmbas di jóge xiin bu ko yàlla xasee ba yebal day jóg ànd ak lu nekk waaye du teebu boobaa nit ñi nag dañuy am nu ñuy defee ba xiin woowu ñu mucc ci ku dee da ngay daw dugg ci sa néeg ngir ba nga tooy bu àndee ngelaw nga gis foo seelu itam ba ngelaw la bañ laa jot kon mbas mi itam nag dafa am lu mu ànd ak mooy dafa laaj cet set googu nag la ca jëkk bokk na ci di raxasu waaye di raxasoo saabu te far saabu bi gën a yomb muy saabu ordinaire moo gën ci raxasu mi soo demee ba saabu boobu nga raxasu ci ba mu set du tee li nga xam ne moom la tuddee gel te mu nekk nii kenn ku nekk war ay jëmmi jamono nga di ko laalaat ki sa loxo nga di ko foroote raxas ko ci sa loxo ndax microbe bu mu ca fekkoon rey ko ci biir cet googu su amee nu boole ca nag itam kon wàññi niñ doon doxale nuyoo yàllaa ko digle waaye asalaamaaleykum wa rahmatullah yi di moo doon sangu nuyoo yi te loolu loxo mën na caa bañ a amu yoon nu bañ a joxante loxo tey dandante lu war a toll ci lu mu néew néew meetar ndax fii ma toll di wax ay loro ngi génnee ki sama gémmin doonte gisuma ko yow mi ma jàkkaarloog soo ma jegee mu ma la takkee ci sa tuñ bu jàllee ki sa gémmiñ su fekkee ma yor jàngoor ji dama la koy wàll kon ñuy daan dante ci biir loolu waaye suñu yàlla suturaale it ñu am li nga xam ne mooy masque yi ñu di ko jëfandikoo te di ko takk ndax masque boobu ngay def kat dana tax yow doo wàll kenn waaye kenn nit du la wàll gannaaw boo raxasoo set microbe bi moom da ngay daal di tàggook moom dootu taq ci sa kow bu taqoon ci yow dee soo nuyoowut soo ko yorut kenn du la ko jox soo takkee sa masque it lor yooyu du agsi ci yow ñu def loolu waaye gannaaw yooyu yépp bu pare fawwu dem ak ñëw bi fawwu jonjonte bi ñu wàññi ko looloo tax ñu ne kenn ku nekkoon na yem sa kër bu ku nekk yemee këram rek kenn du wàllu kenn kenn du jëli kenn fenn di ko fa yóbbu te foofu tànk rek ko fa yóbbu ndax feebar bi du ngelaw koy yóbbu ci day taq ci barab mbaa mu taq ci nit mbaa mu taq itam ci ay yére sax nga yóbbu ko fenn door koo mën a jox nit ñi kon su ko defee fa tabaarakallaahu loolu buñ ci tegee sunu bakkan set gi am kenn ku nekk nag nga toog léeg sax dama naan bu nit ñi yem ci toog nañ déju toogaay boobu nag àgg na ci fépp fu mbooloo newoon nu ne nañ ko wàññi lool walla nañ ko bàyyi ndax bu nu demee kat ba gis ne kaabatullahi yi gële ci arabi saudi tëj nañ ko jumaay màkk jumaay madina na nit ña doon dajee di julli ñu ne déedéet la nga xam ne moo amoon tey ca faas nit ñi jógee fii di ziyaara ji tëj nañ réewul Cheikh na Ahmada Tidiane yi radiallahu taala anhu nga ñëw fii ci senegal gis ne euh, zawiya Seydi Hadji Malick si tëj nañ ko jumaa ya julleetuñ ca jumaa waaye dañuy nodd rek nañ ko doon defee ci ca farata ja kenn ku nekk ca nit ña dem julli sa kër te loolu jamonoy rasulullaay amoon na nga ñëw masaalikul jinaan bii ñu ne tëj nañ ko nga dem Touba la sëriñ ba dogal ñay wattu jumaa ja nga xam ne foofaay seen barabab lépp lañ fa doon nekkee ñoom mu ne ñooña mat nañ limab jumaa nañ ñoom dong di julli ña ca des buñ déggee noddu kenn ku nekk na julli këram ma ñi nga xam ne ñoo jiite itam ulamaaw yi ci fii ci senegal def ñoom it communiqué euh, euh, imaam yi défendre woon ci ñoom yépp jàpp ne kon jumaa yi nañ ko muñal nañuy nodd nit ñi ko ne julli sa kër loola day bu xasee ba am nag leneen dootu farata di dajale ay nit dootu ngénte dootu cëyt dootu dootu dootu dëj loola yépp nag nañ ko doon defee buñ gisee ne day dajale ay mbooloo te kenn ku ne boo ñëwee mën nga ko faa jëlee mbaa nga wàllee ko fa nit kon dafa jaadu loolu yëpp ñu bàyyi ko école yi ñu tëj ko la ko dawee ci case de tout petit ba ci université waa ndax danañ tëj école yi nag ba pare di ko daje ci biir kër yi moo tax may wàññi ne toog leen seen kër buñ ko waxee kër gi sax dafa am nañ fi war a toogee waaye bu fekkee buñ duggee ci biir kër gi nan naroon a jaloo ca biir école ya ca cours ya nañ doon jaloo lañ koy def du sotti bu fekkee nag yàlla dogal nañu ne couvre-feu am na huit heures ci guddi commencé ba six heures du loolu da yomb naa mucc ndax nit ñi guddi gi dañ daan tëdd di nelaw di noppalu waaye bëccëg bi nga xam ne bii nag état d'urgence malgré wax nañu ko waaye bu 6 heures jotee nit ñi moom nañ sañ bopp dañoo seetlu ne nit ñi ñu ngi ci mbedd bi nekkin woo xam ne da nga léegi xool leen ba yàgg day mel ni dafa mel ni yëgoo luy seen yaram ne coronavirus bi am na foo toll ña nga toog def ay jataay léeg-léeg nga gis sax ñu dajaloo di naan ataaya léeg-léeg nga gis ñu dajaloo di naan ay kafe nga gis ko gàddu palaatu orange am na mu ko doon jaayee ba dara xewut la ko bëgg a gàddoo gaaraam place oo gaaraam bu taxaw gaaraam yi continuer dama jàpp ne mbedd mi nañ ki sàkk pexe mbedd du pour dox mbedd du pour toog mbedd dem pour doxi soxla la bu sa soxla jooxee da ngaa war a dellusiwaat waaye wuta ban nag tekki mbedd mi sàkk gaaraam place ci biir mbedd mi ba jàmm muy am sax jaaduwut waxuma laa bi nga xam ne léegi lii xew na marché yi gis seetlu dañ ko boo seetloo li nga xam ne mooy wàllante bi li docteur yi di faral di wax li ñuy tuddee euh, cas contact contact mooy ki nga xam ne xam nañ ne kër gee diw am na ko fa ñu ne nañ saytu ci jamono yii yépp ci ñan la demoon ak ñoo dikkoon ci moom nu jël ñooña def leen quarantaine seet ndax ne na ci ñoom la nekkut ci ñoom ku ca feebar ba dal ñu ne contact la waaye léegi fan yii li xew mooy li ñu tuddee kaa communautaire mooy ki feebar te xamut fu mu ko jëlee xamut ku ko ko loola nag bu fekkee am na da ngay jàpp ne kon ndeke am na ñuy dox ci biir nit ñi te yore ko soupçonné wuñ woon ne gis nañ ku ko yor mu wàll leen ko soupçonné woon ne fa jóge am na ku ko fa yor ñooña nag kon mën naa continuer di law te cas communautaire yooyu nag suñ ko bëggee dakkal mbedd mi la ñuy baxee feebar bi gis nga feebar bu dee moom dong moo ne ci mbedd mi te ngelaw li du moo ko yóbbu fenn ay nit ko fa yóbbu su gisut nit ñi feebar bi mënut a toog moom dong ci mbedd mi lu ëpp ñetti waxtu suñu béyee kon mbedd mi te muy dëgg bëccëg ab lëm guddi lu béyeeku ko feebar ya fa ne yëpp day daal di dee microbe ba day dee dootu ci mën a jot feebar bu duggoo ci nit sax li mën a def ci moom mooy fukki fan ak ñeent lay mën a nekk ak nit ki yaar mu commencé ko naka faagaagal ay cëram feebar bi feeñ ñu dem faji ko waaye su ëppee fukki fan ak ñeent nag da ngay jàpp ne kooku sax kon feebar ba nekkut ci moom wala nekkutu ci kon nag nañu góor góorgóorluwaat ñu yokkaat cet gi faratal raxasoog saabu bi di def ci suñ barab yi nekkit eau di jëlit fa tabaarakallaahu gel bi ku génn laal ko ku duggit laal ko ku ne salaamu aleykum ñu jox la ko nga laal ko nu fexe itam ba kër yi ñu toog kite ba yi mbedd yi kër yi buñ fi toogee dafa am nu nuy toogee nu mooy rek kenn ku ne jàpp sa bopp te ñu fexe masque yi kenn ku nekk lu mu néew néew nga wut ko maa ngi sant bu baax tajoore réew mi dafa naa ne bu ñu leen jàppalee dana baax ndax fan yi ñu ngi defar ay masque yu am solo te façon yi ñuy defar sax manees du ko fóotal sa bopp saa bu ordinaire def ci itam sa eau de javel boo paree passé ko ak fer wu tàng di ko takk-takkee su ko defee kon loolu bu amee ñi ngi sant docteur yi ndax kat ni feebar bi dalee ñi doo dutoon docteur moom lay dalee docteur yi ba am ci ñuy génn àddina te borom njaboot lañ waaye ñoom la ngay jànkoontoog moom yàlla yàlla taxawu leen sant itam nag kilifa diine yi ci liñ ci def sant it presse bi nag taxawaay yi ngeen def pour yee nit ñi ndax lii ngeen def am na solo te fa seen mën a yóbbu kaddu doomu aadama bi nit ki munta wër di ko fa joxe di sant journaliste yi kon ci taxawaayu na ñëpp rafetal waaye di sant it borom réew mi muy président Macky Sall ndax ba mu jotee lu mu war a aaye aaye na ko lu mu war a digli digli na ko waaye lu mu war a joxe joxe na ko ndimbal lii nga xam ne wax na ko te ñu commencé koo gis muy dugg itam ci wax dëgg gox yi ak gox goxaan yi nañ fexe rek ba rafetal joxeen bi bañ koo jël jox ko ñenn ay nit. nu yor ca loo xam ne lii gën loola sax dañuy am bay denc fekk ña nga den dëkk ñoo xam ne ñi amuñu ñoom lu ñu añee wala lu ñu reere mësuma la wolof di bañ waaye ñu fexe woon ba kenn ku ne doonte ñaar fukki kilo juróom nga yor ko jox ñeenti nit ku ne ñaar fukki juróom muy benn barigo moo gën nga jël benn nit jox ko barigo ñett ña di di ñaxtu kon def na lu rëy loolu mu joxe nag wax ji jën ko wàññi ak njàmbat li diw warta joxeeg diw warta yóbboog aha kay ku mën a joxe rek mu gaaw na joxe ki mën a yóbbu mu gaaw na yóbbu ñun ñëpp ñu àndatoo sant président ci loola te fexe nag ni mu ko defee itam ci côté boobu def ko ci liggéeykat yi dara koo def ci borom école privée yi def ko ci borom hôtel yi noonu la ko defee ci diaspora bi may masawu waa diaspora bi ndax fa tabaarakallahu ñoom dañoo amoon taxawaay ci réew mi di dundal ñi ci réew mi di dundal seen bopp fañ ne buñ xëyee mënatuñoo liggéey fañ ne ñu tëj leen mënatuñoo yónnee fii ci réew mi ñëpp ko yëg. waaye ñu xam ne rek lu métti yàllaa koy teggab jaabam waaye boo ko santee rek mu teggi ko nañ saxoo nag ak lu waay mën a sikkar baat bi gën a neex yàlla baat bi nga xam ne moom la yàlla gën a yëg mooy alhamdulillah ndax kent moom rek a ko yeeyoo moom bii suñu borom ngërëm nag mën nga koo defal ku def njàmbaar mbaa ku la ko defal waaye alhamdulillah ala kulli haal alhamdulillah euh, yàlla rek moo ko jagoo su ko defee kon nag nit sant saxoo ko. man bokk na ci lu may digle jamono yooyu yëpp te ko def mooy jant bu nit jullee suba santal yàlla ndax am na ko bëggutoon julli bëggoon a julli corona bi tax na mënut a julli wala sax corona bi faat na ko dootu julli yow nga julli ba pare defal téeméeri alhamdulilah soo jullee tisbaar am na ko corona bi tax mun ta julli ma nga tëdd fa mu tëgg wala am na ko corona bi jël sax moom dootu ko julli. yow nag nga tal ko julli tisbaar defal téeméeri alhamdulilah boo takkusaanee defal téeméer téeméeri alhamdulilah boo timisee nga def téeméeri alhamdulilah bu géeyee nga def téeméeri alhamdulilah muy juróomi téeméer par bés su ko ñëpp maasee woo rek cant gii di njëlbeen feebar bi day dem ba jeexal boppam ti gaaw lool ñun ñëpp dañuy dem sax ba naan ndekk kat fañ ko yóbbu woon eggu fa yàlla na ko yàlla defee noonu ba la ñoo dugg ci weeru koor wi ci darajay rasulullah sallallahu alayhi wasallam yàlla yàlla def jàmm yàlla ko yàlla teel a taxawal génne ko ci Sénégal ku feebaroon yar na nga wér Eh, ku génne àddina muy ñett yu yàlla bu ci ñeneen topp yàlla na yàlla xaraleen aljanna te sàmm sunu doom yi yi ca bitim réew sàmm bu kilifa diina yi waaye sàmm borom réew mi nga xam ne itam ak ñoom koy jàppale ba lépp loo xam ne war nañ ko taxawee ju taxawee ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.